dama ne am na luy raam luy raam nag mu ngi tudd coup d'état coup d'état militaire coup d'état militaire foncier lan mooy coup d'état militaire foncier coup d'état mooy fekk ki fi nekk nga jëlee ko fi remplacer ko te du dëgg du yoon te ni nga ko bëgg a doxalee jaarul yoon coup d'état militaire foncier mooy lan fekk fi ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci bërëb boo xam ne biñ fay dëkk sax man mii di wax ak yéen juddooguma woon biñ fay dëkk man mii di wax ak yéen te nag wax dëgg yàlla maa ngi commencé sax bi jaaw juddooguma woon nga ne ñooñu nañ fa jóge pour yow nga toog ci anam boo xam ne dara jaaru si yoon nous ferons face à ce coup d'état militaire foncier ci nii wala ci naa nous ne l'accepterons pas le chef d'état-major général des armées Biram Diop la ñuy waxal duñu nous toog seetaan nga dàq Nous 79 familles pour jekk-jekkal nga dàq 79 familles pour sa intérêt yow ak intérêt say say copain ak say coquin da ngeen bëgg a suuf ñun itam dañoo bëgg a suuf da ngeen bëgg a kër ñun itam dañoo bëgg a kër am ngeen sañ-sañ am kër ñun itam dañoo am sañ-sañ am kër am ngeen sañ-sañ am pàkk ñun dañoo am sañ-sañ am problème bi ñun ñoo leen fi jiitu te Sénégal li fi am mooy bu ñuy séddale pàkk wala suuf wala kër la priorité mooy ñi nga xam ne ñoo fa dëkk balaa ngaa dem uti ñeneen ñoo jox da ngay jox ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo fi dëkk donc ce coup d'état militaire foncier ne passera pas aujourd'hui ne passera pas demain saa yi bu ñu jàppee gis ngeen jàpp yu bëri yi ñuy jàpp ndaxte dañuy manifester te dara taxul luy manifester ndax ñii ñu bëgg a teg naxar ñii ñu bëgg a teg métit say bu ñu jàppee ci biir police wala gendarmerie dañuy def audition maanaam enquête ci enquête bi dañ lay laaj saay su nekk benn question bëri na laaj ñu lay laaj mais ci laaj yi am na benn laaj buy ñëw saay su nekk est-ce que vous avez fait le service militaire xam ngeen loolu mooy lan mooy état doful jinne jàpp ko xam na y a une différence entre Guy Marius Sagna bu deful service militaire ak Al Hassan Hann bi def service militaire <laughs> man jànguma Je ne sais pas jànguma tactique militaire jànguma stratégie militaire waaye xeex bu fi amoon ñu ne dañuy ñëw génne famille ah qui il a été militaire ils ont été militaires dañ ne hey gars quartier daf leen li daf leen la acca xaw escadron patati patata donc am lui ram ca terme sud loo xam ne bu ñu ko seetaanee ay militaires ñoo nar a song ay militaires à la retraite et des militaires en activité ma ne bu ñu kenn provoqué bu nous kenn provoqué chef d'état-major général des armées Biram Diop na arrêté na reculé na dellu ginnaaw parce que fii du fi naanee ñeex na dem feneen terme sud du fi naanee ñeex militaire et nous profitons de l'occasion pour féliciter saluer rendre un hommage appuyé à tous les hommes de tenue qui font la fierté des citoyens qui font la fierté de ce pays qui versent leur sang pour askanu Sénégal mais nous n'avons aucun respect pour les hommes de tenue mafieux pour des hommes de tenue pour des hommes de tenue et sont lobbyistes décision pour nous allons désobéir à cette décision nous allons faire face à cette décision loolu la désobéissance civile Moi gis notel di ñew nga ne notel bi ma lank ma bañ du ko nangu bañ nangu ñu les 79 familles de Terme Sud